damay fàttali rek di wax ni 1963 ci leen gëjoon a tas parti politique te yaakaar naa nag kon rythme démocratie bi ñuy delloo woon 1963 loolu lu doy waar la ci réew kon état bi na ànd ak xelam pour xam ni tas parti politique ci kayit yomb na mais kenn mënut tas parti politique ci ay xol ndax yaakaar naa ne fi réew mi toll ñëpp tey seen projet ak seen programme kenn mënu koo génn ci xel doomu aadama yi kon Ousmane Sonko li muy dund. metti na waxtaan naa si ak ay kilifa diine yu bari yoo xamante ne ni ñoom pare nañu pour que maanaam dox diggante Ousmane sonk ak état du Sénégal pour rencontrer ak président la République ak rencontrer ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko bi nga xamante ni mooy nekkoon jut Pastef kilifa yooyu tamit ñoom bi mu waxtaan ñoom ñoom nee nañu incha allah ci fan yu néew ñoom dañu ñu waxtaan. tànn seen parti porte parole ñu dem seeti président de la république ngir jamm réew mi ak dalu réew yoy nak da naka lu jar may def détail yi parce que ay kilifa yoo xam waxna ma ak ñom te joxna ma seen cadeau yakana naa lolu inshallah fan yu ñew ci kanam dañ gis lolu bu neex yàlla. li jëm ci mbirum Pape alagna nga xam suñu xarit la Pape alagna muy nit ku jambaré boo xamni taxawayam ci réew mi ñepp xam nañu ko képp ku massa am ay jafe-jafe nga bok ci nguur gi wala nga bok ci opposition bi mi ngi sa côté tay ku ne xamna ni limuy li mom tamit lu metti métti la motax may sakku Pape Alé nañu ko libérer immédiatement parce que kat ah day tooñut wax deug yalla tay tamit japp na ni képp ko xamanteni yaangi tok di traquer ay journalistes yaangi traquer arrière sa démocratie te mëno mbilu mbacc nga jël ab journaliste ci kasso bi ngir ay opinion lol tam yakana lu ñu ñaaw la lu ñu la kon papa Alé ñaan ma ngi ñaan aussi ñu libéré ko mu delu kërëm pour que mu dellu ci njabota pour man continuer ligéyam non la koy defee tamit ci Cheikh Bara ndjay mi nga xamanteni ni depuis ay weer ñu ko tejj kërëm ba mu nek aussi tam ñom grève de la fin muy ñom ñet ñep non la koy def aussi tamit ci nga xam moy Serigne Assane bak nga xam depuis ko ba ngi ni mu nek prison bu ñu jip si màggalu Serigne Touba di màggalu maam gi maa ngi monte ñu bàyyi ko mu ñëw màggal si ta xam top topp ay nit topp ay kilifa topp ay journaliste amulul intérêt ak yokku-yokku réew am réew mënoo koo defar di tëj ay nit mënoo defar ak di toroxal ay doomu kon Macky Sall maa ngi xa koy wax ni ko képp ku koy wax ni ko lii ngay def nii ci journaliste yi ci kilifa diine yi ci homme lu baax la daf lay nax parce que loolu jëmulu réew kanam maa ngi sàkku aussi ci Ousmane Sonko Pape Alé Niang ñoom Cheikh Bara Ndiaye ñi nga xamante dañoo attamé grève de la faim maa ngi demande ñu arrêté grève bi parce que nag képp ku gëm yàlla ku nekk da nga xam ne grève de la faim bi lépp lu la siman dalu nekk xaru la kon yaakaar naa ni loolu tamit maa ngi leen koy wax delloo leen ci li nga xamante ni mooy diine ndax kat loolu lislaam daf ko tere ndax lu la si mën a dal yow yaay responsable bi kon maa ngi leen di wax ni nit bala ngaa mën a xeex da ngay am force nit bala ngaa mën a xeex da ngay am xel ak xalaat tey itamit mën nga xeex sa pilim mën nga xeex sa kaddu waaye nag di def grève de la faim loolu yaakaar naa ni day tax nga néew doole ba say noonu mën laa jekk pour di la ree kon maa ngi leen di wax ñoom ñëpp ñu gën a dellusiwaat comme ni ko président ab waat di defe woon nga xamante ne heure bu masaati grève de la faim Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla yokk ay leeram di jël benn xew la bu mag dem yóbbul ko ko ñu ko na si xewlu ndax lii mooy njariñam kon maa ngi sàkku ci kilifa diine yi rawat na Serigne Cheikh Mbacke bu Serigne Saliou bi nga xamante ni mooy sëriñub Ousmane Sonko na def la waajuram wu tedd wi doon def ci président Ablaye Wade gën koo ñaax gën a goo delloo ci yàlla mi nga xam moom moo ko bind binduñu gën ko fàttali mag ñu baax ñi ak ku baax képp ku mas a nekk ku baax ku nekk mas bëgg dara wala nga mas a jëm fenn am nga ay natt ak ay jafe-jafe waaye da nga ànd ak sa ngor ak gëm yàlla ba génn si te jàpp naa ni ndam la si jële loolu bokk na si li nga xamante ni moom la woon naa si wax leen li nga xam topp nag mooy fan yëpp nag am na ay jëf ay ñaaw ñaawteef yu baree baree bari yu am si dëkk bi ndax jàpp naa ne réew kenn waru koo defa pare di ko yàq wala kenn waru koo bëgg pare ñu di ko yàq fan yi si ginnaaw gis ngeen ay nit yu attaqué ay biis Tata ñuy taal leen ñii ñu wax ne dañ leen sànni ay cocktail molotov ba ay nit faatu fan yi si ginnaaw gis ngeen Touba gi nga xam amul lu dul moom ci Senelec bi ñuy waaj màggal gi ñu ne lakk na ay oto si biir Senelec bi loolu yëpp yaakaar naa ne ay jëf la yoo xamante ni kenn mënu ko rafetlu ñu ngi koy ñaaw di wax état aussi mu jël ay responsabilités pour sécurité askan wi nga xamante ni moom la ko teg ci loxoom. ndax yaakaar naa ne buñ ñu jëm ay màggal événement yu toll ni ay 4 millions de personne di daje si benn lii ba pare ay jëf yu ñaaw yi ñuy seetaan mi si biir dëkk bi loolu nañ arrêté te xam ni Serigne Touba fi mu nekk mooy fa mu nekkoon démb. sëriñ Muntaxa mooy sëriñ Touba sëriñ Muntaxa li mu woote mooy jàmm ak dal ci réew mi sëriñ Muntaxa liy parte mooy lislaam sëriñ Muntaxa liy parte mooy yoonu murit ak mag ñu baax ñi nga xam ñoo fi tegoon li liñ fi tegoon moom foofu la nekk képp ku ko xool fu dul foofu nag doo ko fa gis moo tax bi mbir mi amee 2021 ma bokkoon ci ñi nga xamante ñoom la sëriñ Muntaxa yónni woon ay ndaw ci ñun jëloon ay engagement ak ay responsabilités maa ngi fàttali askan wi ni mun Mountakha loolu mu jëloon ay engagement ba léegi mu ngi ci loolu kon xam ni lam waxoon dama leen a yoreel bor bor boobu nag fay nañu ko ci loo xamante luñ gis la ak lu luñ gisul ndax bu ñu demee ba réew mi am jàmm ba réew mi am dal ba Macky Sall renoncé troisième màndaa bi jëfi Serigne mun taxaal am loo xam ne nag kenn mënu ko wax si kaw waaye am na luñ si xam lu baree bari te renoncé ba bu mu renoncé troisième mandat bi bokk na si li indi dalu réew mi kon li des rek. mooy li nga xamante ne ay dotine lan ñu téye leen ñu arrêté leen ndax jàpp naa ne képp ku mën a bàyyi nag xon branco mu ñibbi këram war ngaa mën a bàyyi dotine yi nga xam ñoo ne si biir dëkk bi ndax koo xam ni da nga saaga Macky Sall saaga procureur de la république tuutal li nga xam ne mooy Sénégal nga dugg si dëkk bi ci clandestin bëgg génn si dëkk bi si clandestin ñu jël la jàpp la même pas quarante-huit ñu def seen lobbying pour bàyyi la génn la nga dem ñibbi yaakaar naa ku mën a defal loolu ab tubaab war nga ko mën a defal ñi nga xamante ay doomu Sénégal kon jàpp naa ni ku mën a bàyyi awokaa boobu di comprendre ko war ngaa bàyyi Ousmane Sonko war ngaa bàyyi Pape Alé war ngaa bàyyi Cheikh Bara Ndiaye war ngaa bàyyi ñoom sëñ Assane Mbacké ak ñeneen ñi nga xam ne leen jàpp ci li nga xam mooy seen délit d'opinion ndax nag day mel ni Sénégal gën bokk ba tey dañoo nekk ay jaami tubaab yi ndax mënoo nekk ak xonq nopp toon réew mi jàpp la 48 heures ñu bàyyi la nga dem tey ki nga xamante ne tey moo bokk ci réew mi ñu di la traqué di la bund xataal loolu yaakaar naa ne ba tey day firndeel ne amaguñ seen indépendance loolu moo tax nag maa ngi laa ci appel aussi justice ak ki nga xam mooy jiite justice ak président la mi nga xam mooy suuf suprême la magistrature mu xoolaat taxawaayam ci mbirum justice ak askan wi xam ñoom la ñuy te xam ni yaakaar naa ni deux fois deux mesures moom war naa mën a dakk te dem naa justice bi jamono yi ñu toll ni trois vitesses lay dawee ndax lii moom dafa flagrant ba ëpp ndax loo xamante ni tey ñu fàng kenn du ko jeex may laaj aussi ci ban xaalis lan ko daggalewaat bee mu dem est-ce que xaalisu réew mi la wala xaalisam la wala loolu parce que nit bu lay refoulé ngay dem dafa am bee bu lay daggal bee boobu noonu ci xaalisu askan la génn wala kan moo ko daggal bee boobu noonu. aussi tamit laaj aussi état Sénégal lan moo waral li nga xam moo lu koy tuumaal ci lu jëf ju ñaaw ju mu def jëme ko ci suñu njiitu réew nga xam institution la. jëm ko ci procureur bi nga xamanteni ni suicide la tay ñu man ko bayyi ni mu demul bopam te ñi nga xam dañ leen tuumaal ci mbirum suicide lo xam ay ay dañoo bind ci seen face Facebook ñu téye leen pendant ñent yo juroomi wër ku ci mel ay ñom basir jumaay fay ak ñooñu ma ngi sakku tamit ñom tamit ñu bayyi leen parce que yaakaar naa kenn wurul manam jël tay tuba bi teg ko kaw nit ku ñuul gi comme ni nga xamanteni tay non la ko Macky Sall bëgg def ci réew mi loolu aussi nañ ko arrêté gëna gaawé parce que loolu du yoon kon yaakaar loolu bokku na ci li taxoon ma ne na leen wo pour waxtaan ak leen

li nga xamante ne moo jëm ci mbirum suuf te naqari ñëpp tamit daan fexe moo tegwaat si yoon ndax programme bool na si maanaam bu ñu jotee si réew mi ministre de la justice deetul am ci réew mi parce que su boobaa léegi maanaam ki ñi nga xam ñooy waa justice ñoom am seen balance bopp yoral seen bopp seen mbirum justice ndax tant que ministre de la justice mi nga am di yilif procureur président de la di ko yilif justice nii lay mën a doxee yaakaar naa ko xam ni fan yi ñëw doon ñu waxtaanaat ci programme bi laase koy sax ñëpp xam ko décorté ko aussi tamit ba ñëpp xam ne lii leen bëgg fii lañ bëgg a dem pour askan mën a xam dèjà suñ candidat bi candidat sérieux lay doon incha allah dañu fas yéene dem ci dialogue jongante yi lu ñu yàlla may ñu xam ko mais suñ première action daal mooy bu ñu jotee ci réew mi te Ousmane Sonko bàyyiwuñu ko daan ko génne libéré ko ba pare nommé ko premier ministre mu nekk suñu wet dañu liggéey jàppale liggéeyal askan bi je vous Anza TV Gaulen Gaungen, Bosco ngeen cloche ngeen membre abonné di en temps réel tous les événements